kenn mësu koo gis lu mel nii jëf ju rafet nettili bu rafet rek la mën a am jëf ju rafet joojee nga xam ni doomi Baye Alé Ndiaye ji defaat na ko léegi ngeen gis ko sars boobee nga xam ni moom lay waaj sars beeg lépp a ngi ci vidéo bi bàyyi leen ko xel mu am solo lool dëkku dëkkub seexul xadim bi nga xam ni lafa am mooy 18 safar di màggalu Tuubaa gi nga xam ni daanaka màggal googee muy tiijaan muy laayeen muy ñaseen muy ñëpp ñi nga xam ñoo ñet ca na ba lépp lu ci waay def déwénee ci carton sunu borom yal na ko am ba am lu ëpp loole nga xam ne def na ko ca Aziz Diagne nag moom mi nga xam ne ngeen gis ko noonu ci embarquement bi nga xam ni camion yi yeb nañ ko ba ña nga Tuubaa dëkk bu sell ba ngeen gis nag yooyee nombre bi bari na ba duñ leen jox sax ab lim daanaka ndax lépp loo xam ni xool bu fees lañ koy nettalee ndax jëfu ju rafet dafa neex a nettali mu ko jox nag yeyoo ko bu baax a baax ki ko jox te it amuk fay goo xam ne gu am solo la dañuy jëlale ki nga xam ni mooy xalifa général bi di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké waaye xaadimul rasul la ñuy wax ndax daana loole bu ko génnee teg ko ci loxob Serigne Mountakha teg na ko ci loxob xaadim rasul ndax dëkk boobee mooy boroom jëf joojee nag yéeme bu baax a baax jëf joojee ki ko def nag du kenn koo xam ni ab jullit la jullit bu ñu ko déggee mooy taalibe seex boo xam ni daanaka mook taalibe murut déggoo am na ci ñoom ndax jullit ñëpp fa leen te it jullit mooy ki nga xam ni mooy ku bëgg réewam bëgg ay kilifaam bëgg ab tarixaam waaye lépp loo xam ni nekk na ci am réewam mu nekk ca di ci def lu baax jëf ju baax ji nga def ci seexul xadim jëf ju baax ji nga def ci Touba yàlla na la ko yàlla fulal heure boo xëyee di gis ak yokkute ci li nga xam ne mooy sëg dundu yow mii di Aziz Aly Ndiaye cant ak ngërëm ñeel na la image ngoogu nekk image yoo xam ne euh, kenn du ko wër image yoo xam ne yu am solo la te lii lépp nag amul lenn loo xam ne dana des ci yoon wi lépp moom mii di Aziz Ndiaye ci ay camion la ko teg yóbbu ko ci dëkk bu sell ba teg ko ci kanamu euh, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu jàllale ko kon askan wi ñëpp na ngeen ko xamee loolu information baa ngoogu mu noonu lu leer